yàlla nañ ko yàlla defal sëriñ bi ñoo ngi doolee sant Cheikh Abdoul Fatah Mbacké cant gu wér bis buñ gée xëyee di ko gën a sant ndax yoon wi mu yoon wi mu ñu teg ak yoon wi mu leen teg kon ñu ngi ko ciy sant ndax yoon wu yoon wi mu leen teg kat ñun la ko defal ndax bu ngeen meloon neneen nit ñu ànd ak yéen kon ndok bi nga xamante ni yoon wi leen Cheikh Abdoul Fatah Mbacké xàllaloon wàccu leen ko ëpp leen ko yeesu leen ko yal na ci yàlla gën a jàpp ba ngeen am téeméeri at yu tegal ci barkeb Serigne Touba mbooloo mi nee nañu sëriñ bi ñi ngi ñaan yàlla nga yàgg fi lool ndax am nañ ci yow yaakaar lool ndax li nga leen won ndax kat bi fi Cheikh Abdou Fatah jógee ba léegi léebu defi fan waaye gisuñu la nga soppiku ci doxin gisuñu la nga soppiku ci waxin yaa ngi toog ci kër gi di diglu ndigal jëmoo fenn duggoo ci dara lu may toog di jaamu yàlla téye sa kurus loolu nag xam nañ ci lu wér mbooloo mi ne ñu ngi ñaan yàlla yal na la yàlla aar aar njabootu Cheikh Abdoul Fatah gépp mbooloo mi nag waa Touba la waa Taïf waa Bayla waa Tindodi waa Nayde ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoom ñëpp seen xol sedd na guy ci yow ñu ngi lay ñaanal sëriñ bi mbooloo mi nee nañu ñu ngi sant cant gu wér de ndax yokku nañu. ba yëg ni ñu ngi yokku kon yëg nañu ñaan yi leen di ñaanal yëg nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax xanaa di ñaan doo leen waaye jàmbatuñu dara de ñu ngi sant yàlla bu wér jàmbatuñu dara ndooleen rek la ñaan waaye ñu ngi sant di ñaan yàlla yàggal la fi waxtu wi daa guddi liñ ci waroon wax lépp bari na waaye jërta jërta guddal mbooloo mi daal sant nañu gërëm nañu ñu ngi fàttaliku nag ndax am na jàmbaar yu ñu àndaloon ci eh, liggéey bii danañ ci tudd ñaar ñu yóbbaale ñi ci des muy Ousseynou Ngom ak Bara Sylla ñu yóbbaale ñi ci des ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla yokk seeni leer leeral seen bàmmeel boole nekk Cheikh Abdoul Fatah fa ñu ne mbooloo mépp ñu ngi leen koy ñaanal ndax àndoon na ñoom ñun àndub rafet àndoon na ñoom àndub jàmbaar ndax mbooloo mi ah, xam naa kenn mënu leen ci de buñ ci mënul kenn mënu leen kenn mënu leen ci woon kon ñu ngi leen di fàttali ko bu baax ak ñii àndoon ak ñun ñëpp ca wujji tey suñu borom ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàggal la fi yokk sa wërsëg yokk say xéewal ci barkeb Serigne Touba Mbakke Serigne bi mbooloo bi de xam nañ ni li gën a jafe moom nga nangu mooy nangu kilifa nangu kilifa. na ko Cheikh Abdoul ah, Fatah nangoo woon noonu nga ko nangoo Cheikh Abdoul Fatah jëmm ji nangu woon kilifa bëgg ku ko yilif lool nangu kilifa lool tànk yooyee moom nga jël yal na la ko yàlla sàmmal téel la ko ba nga am téeméeri at yu tegal yaag say rak ci barkeb Sëñ Touba li ma liñ ma bëggoon wax loo nag ëpp na lii waaye daa guddi ca wax daa jafe lu ci dëng daal xam ne ni ci mën a waaye mbooloo mi moom seen yéene ak seen li ñu bëgg wax ëpp na lii jërë ngeen jëf yal nañu ko fekkee déwén nee na yéen mbooloo mi am na lool mi ngi leen koy yóbbante ca kenn ku leen ko jàpp nee na lu doon sàkku Cheikh Abdoul Fattah nee na waat na ne boo ko sàkku ci jëmm ji am ko ndax Cheikh Abdoul Fattah kat jëmm ji yóbbu waaye bàyyil na ko fi lépp ñun nag xam nañu bàyyi na fi lépp yóbbuwul dara jëmmam rek la yóbbu. lépp a ngi mu bàyyi ak moom mii kii daal ñaanal leen ko fan bu gudd ak ko gu wér ah mu jëwul posé bu mu réer de yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu gudd fan lool lool lool ca barke Cheikh Ahmad Bamba barke Cheikh Abdoul Fatah bisimilah in wàlli yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatoo yéen mbokki julli li mbokki taalibe ñu ngi leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul mustafa ibnu Cheikh Abdoul Fatah sëñ bi nee na mi ngi leen nuyu yenn kenn ku nekk si trop ak santam di leen masawu ci coono yi waaye di safoo seen jëmm yi ak seen jataay bi ndax loolu moo tax bi mu jógee mu ànd ñi nga xam si ni ñoom la ko yàlla booleel ñu bokk Cheikh Abdoul Fatah ñu ràññee ci sëriñ Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdoul Fatah ak sëriñ Mouhamed Mbacke moom Cheikh Abdoul Fatah loolu nag li ko waral sopp leen bëgg leen am yéene ci yéen ba tax fépp foo xam ne bu fa jógee yéen a joojee yokk muy doxe noonu nee na mi ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen fàttali tamit li nga xam si ne nii mooy ndigalal suñ boroom yi ndax suñ boroom moo ne fi indi am lu tax mu andi ñu fi moo ñu jaamu ko nee na kon ay doom ci loolu rekk lay njëkke moo ñu xam ne suñ borom dana fee indi ngir ñu jaam ko lépp loo xam ne ña ngi koy defati te ndigalul suñu borom yi ñëw lu mel na waxtu ya ñu dagg suñu yitte yooyu yëpp dem joxe waxtu suñu borom yi ba noppi door a nekk ca la ñuy nekkaat nee na tamit ñu rafetal suñuy diggante suñ mbokk ak suñ mbokki jullit yi ndax suñ borom kat ku bari yërmaande la la nga ko def mën na koo jéggal waaye sew-sew ya am sa digganteeg sa mbokkum jullit nee na lool rek kooku dong moo la ko mën a jéggal nee na kon ñu bàyyi xel lool ci bu baax a baax ndigal yi nga xam si ne moom lañ suñu borom sant nee ñu ci def suñu kem kàttan te yaakaar yërmaa dem waaye lépp loo xam ne suñu borom sant tere nañu ko nañ ko jéem a moytu nee na ndigal yi nga xam ne suñu borom sant nañu ko te sëriñ Muntaxa doon ñu ko fàttali ñu xam ne amuri moom fépp fu mu nekk foo mooy Tuubaa ci moom noonu kon ni mu ko joxee ndigal fii nan jàpp ne kenn képp foo man di nekk nga yëg ne ni nga war a wormaale dëmm ji dëkk bii di Tuubaa noonu nga war a war maale dëkk boobu ndax tere yu loo xam ne suñu borom moo nu ko tere sëriñ sëriñ bi fàttali nu ko sëriñ bi dina ko fàttaliwaat nee na mi ngi leen sant baax baax tamit ci ànd gii ngeen ànd rawatina ni ngeen ko àndee ci daayira ndax nee na mënut gis xalaat bu gën a raw bu gën a kawe xalaatu sëriñ Cheikh Mbacke bii te daa wax ne xool naa yoon yi jëm suñu boroom mu toll ne nooyu mbindee fi gisuma ci benn bu ci gën a gàtt bu dul daayira ma jaar leen ci ma gisoon benn bu si gën a gàtt daayira ma jaar leen ci nee na kon daayira bii ngeen nekk na ngeen ko gën a fonk gën ko jàpp gën cee góor góorlu te xam ne lépp lu sëriñ Cheikh digle woon ci daayira bu ñu ko defee ni mu ko déggee woon incha allahu rabbi danañ ci jot. nee na mi ngi leen sant bu baax tamit ci liggéey bii nga xam si ne ne moom la sëriñ Mountakha doon taxawee tam jotoon ko ci kilifa yëpp mu agsi ci moom nee na bi mu ci moom de wax dëgg yàlla mi ko jotalee. ak si li ngeen ci moom loo xam ne wax dëgg yàlla kawe na njortam moom yëg na ne sagal ngeen ko sagal ngeen Cheikh Abdoul Fatah ndax andi ngeen fi loo xam ne wax dëgg yàlla kawe nañ njortam nee na kon loolu nag mi ngi ñaan suñu borom fa nga xam ne foofu la ko kilifa gi jëmee bu fa àggee lañ cey séddale yàlla bu leen si kenn ëppale nee na wax dëgg yàlla loolu moom lu def ngeen ci lu kawe njortam neen tamit ñu gën a góor góorlu comme ci daayira bii ndax ndigal yi xaj na fa lay jaar gisante bi fa lay jaar dimbalante bi fa lay daar nee na lépp loo xam ne jóge na ci daara te war a jëm si ci moom tan gis am mbokkum julit mu nekk ci liggéey bi te yittewoo ko nan ko ci yemale ndax Cheikh Abdoul Fatah sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke loolu la doon wax Cheikh Abdoul Fatah bi mu fee nekkee tamit loolu la doon wax nee na kon nga xam ne daal liggéey bi di daayira moom ñu gën koo fonk gën koo jàpp gën koo jox yitte ji nga xam si ne nii moom la yittewoo neen na loolu moom mu ngi leen ci soññ bu baax a baax a baax a baax di soññee tamit ci bis bii nga xam si ne nii moom lañ dëgmal muy bis boo xam si ne nii bis bu bari yiw la bis bu bari tuyaaba la bis bu bari ngëneel la nee na ni ci taxawee andi seen i jëmm andi seen i addiya la nga xam si ne moom la Cheikh Moustapha ne ñaan naa san borom ba képp ko xam ne fanaan nga ci dëkk bi ci nin ko diglee boo xëyee set wecc ak ay bàkkaar nee na mi ngi ñaan sun borom ni ngeen fi ñëwee ba keroog ngeen fi dellee yàlla na suñu borom set seen bàkkaar wecc ak bépp jullit boo xam ne bëggoon naa ñëw te yéen a te mënut a ñëw nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax di gën a am yaakaar ci yéen ndax liggéey bii nekk ci moom kat yéen a fas yéene ànd kenn ak ku yéen na leen leer na daal mi ngi leen di déglu mi ngi leen di bàyyi xel mi ngi leen di nemmeeku bu baax a baax li sëriñ sëñ sëñ sëñ Abdoulaye Ndiaye wax léegi ne sagal na leen sagal sagal na leen waaye moom tam nee na sagal ngeen ko ndax tey jii bu fekkoon nekk ngeen ci leneen moom mooy jóg moom mooy woote moom mooy def leen waaye kenn mus leen a dégg ci lenn loolu nag li leen ko may mooy daayira bi ak déglu li nga xam si ne moom la suñu borom di digale ngeen koy def neen lool moo ngi leen ci soññ bu baax a baax ton gën a góorgóorlu bis bi bu ñëwee ñu wàaj ko ci am njàng alxuraan ak xasida ak salaatu xalal nabi waaye berndeel mbokki taali yi nga xam si ne tamit dañ fiy ñëw nee na mi ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal ñaan goo xam si ne ni ci ab xolam la ko tibbee tafas ñaan ñaan gu wér yéen ñëpp ngeen yëg bu ngeen jógee fii ni ngeen fi ñëwoon moom yëg ngeen ak yokk noonu loolu mi leen koy ñaanal baax a baax di ñaanal tamit waajuróom bi nga xam si ne moom moo nekk ci biir soxna Maskóoratu nee na mi ngi koy ñaanal bu baax ndax yëg na ne ni mu koy jàppalee yëg na tamit ak ak nekkam fi ni muy amee njariñ ci moom nee na loolu mi ngi sàkku ci yéen tamit ngeen jàppale ko ci ñaan googu comme ni ko sëñ Ablaye waxee moom mooy suñu waajur mooy suñu lépp ci ci kër gi waaye nee na mi ngi leen sàkku ngeen ñaanal ko ko bu baax a baax rakkam yi tamit mi ngi leen di sant ndax kenn mosu leen a dégg fenn te fu sëriñ bi jógee ñu ànd ak moom nee na kon yéen ñi nekk fii daal mi ngi leen di seede na rakkam yi nekk ci ay wetam mi ngi leen di sant bu a baax di gërëm di leen ñaanal ñoom itam li nga xam si ne moom la Cheikh Abdoul Fatah doon liggéey ak moom mii li muy liggéey ñoom ñi kenn bañ leen ci ëppale nee na yéene na leen ko te mi ngi leen koy ñaanal te fépp foo xam ne bu fa demee ñaan loola ñu mën caa jot nee na ma koy def loolu ndax seenub taxawaay ci ci wetam ndax nit kat bu amee ñu koy jàppale dana gën a dal xelam te ñii bokk nañ ci ñu koy jàppale ni ko waa daayira bi jàppale noonu la ko ay rakkam jàppale nee na kon yéen ñi fi teew ñëpp daal ngeen yëg ne sant na leen sant goo xam ne am na commencement waaye amul yamu nee na lépp loo xam ne si ne mbokku jullit fas na ko fi yàlla na fi taseeg lu kawe njortam sëriñ Ousseynou Ngom moom ak sëriñ Bara Sylla tamit nee na mi ngi leen koy jaale di ko ñaanal ndax seen na seenub liggéey ak seen pas-pas ci daayira bii ngeen neewoon nee na kon mi ngi leen koy ñaanal di leen jaale di leen yëg moom mi moo ñàkk ñoo ndax am na fu ko féete woon am na taxawaay boo xam ne daanañ ko taxaw di ko jàppale ci liggéey bi kon neen yéen ñi fi des yàlla na borom sàmm te aar leen andi leen wërsëgu baree bari woo xam ne dañu ci mën a jaamu ndax xam na ne que lépp lu ngeen da ko ko andil ndax bëggu leen leen lu sagam bëggu leen leen li ko sëriñ bi sant mu def ko na ko bëggee te ànd koog yéen nee na kon mi ngi leen sant baax a baax te ñu dugg ci bis bi ak bisimilah rahmaani rahiim génn ci ak alhamdulilah kon loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom moo jóge woon bi lépp lu si jub ñu sant ko suñu borom lu ci dëngati mu ñu jéggal ñu ko xam ne ku xeebu ku doon jot li waxi kilifa dana xaw a lool rawatina mu jëm ci ay waajuram kon moo doon kàddu gi ñoo ngi jéglu ñëpp wa rahmatullahi taala wa barakaatu munta ànd ak dal ma tuuti ci ay melokaanam fii ci biir taayif mooy doomi Cheikh Fatma moo rëy jëftër moo ndam ki moo siggal diine Cheikh Abdou Fataay borom taayif taar ba newoon ca Moustapha moo nekk it ci mi tafa wir ga newoon ca mustafa gis nañ ko it ci mi Cheikh Moustapha musula war telum la wax loola la nar moom lun la dig faye ko bar kenn mësu ko gis mu bangam